attendez attendez sa ça ça je ne sais pas ce que je sais par contre là et qui est vraiment ma position et bu ma bind mooy aujourd'hui Sénégal kenn mënatu la reporter élection j'ai sorti un papier sur ça le ministre de l'intérieur a sorti un communiqué wax na la date des élections est fixée au 25 février et la deuxième chose c'est que Benno Bokk Yaakaar a sorti un communiqué pour tontu le conseil constitutionnel sénégalais a décidé que Sénégal kenn mënatul a reporter élection nit ñi nag gisuñu ko woon. j'ai sorti un papier a une semaine. dialogue bi bu ko décider c'est possible. non non non c'est pas possible le conseil. si vous vous entendez. non même si la, on le conseil a dit c'est pas possible. rappelez-vous on s'était entendu pour que Macky Sall yokk wàññi mandat de deux ans on saisit le conseil constitutionnel le conseil tontu. ci ci dans la décision bu ñu ñëwoon avis la avis la woon ñu jël décision ñu ne décision la léegi sax ne lu muy rendre rek léegi décision. du boobu c'est sur le mandat ils n'ont pas voulu créer un précédent. mais si toute la classe politique s'accorde pour dire. qu'il faut reporter qu'on ne peut pas organiser des élections libres démocratiques et transparentes. Le Conseil a répondu ne quelles que am Sénégal maintenant dès lors que waxtu yi ngay dugg ci mandat xam nga ñaata temps ngay def ci mandat bi il est interdit nga de yokk wala nga wàññi la durée des mandats. bu ñu saisiré le conseil dama nga ubbiwaat ko ak considérant 32 de la. décision mais loolu c'était le mandat. non mais xanaa déggoo est-ce le consensus.